yaa ngi fi del déglu del xool Feeling Dakar site jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar li mu wax si soxna Haydara soxna Haydara ku baax la man mun naa mun naa seede ne tey kuy toog di wax ne soxna du tooga mbaa du liggéey kiram man mun naa ko seede jour bi ma bi jaaga di boole xale yi ñu yóbbu ma pour ma dem seeti waali dama fekk soxna mu ngi si waañ bi di togg soxna dara ku ko gis da ne kii du tooga mbaa day sanse rek toog waaye soxna day nekk si waañ bi di toogal ci karam di séyal ci karam soxna dina wax ndanka dina dox ndanka yaru na teey na baax tabe na te fonk na goroom fonk na goroom bugga na eh, mbokki ji yi bugga ay xariti ji karam ah bugga bugga bugga rakki ji karam yi Ah, loolu man xam naa ci dara jaaga gërëm na ko gërëm na ko gërëm boo xam ne maa ngi toog mu gërëm ko suma kanam kon jaaga ak ah, kon kon soxna Haydara lépp lu am ak waali yan barke soxna Haydara ku baax a baax a baax la ñu ngi koy ñaanal nag yan bu mu am wuja ñu ngi si gannaawam tey ñu ngi si gannaawam suba ni mu toppatoo damay xeex euh, euh, macha allah alors euh, Mbaye nag tey dañu gis sur scène lu doy waar ah Mbaye tey ah, dëgg-dëgg sa digganteek sa sa rakk ji ah, fësalati nañ ko tey parce que vraiment gis nañu Makotou Konté këf sa jamaa jox ko ba pare delloowu la ko. bilaay Feeling Dakar maa ngi leen di nuyu di leen gërëm tabaar fakal la di nuyu ah, waa Gàmbi sama dëkk ku ne xam na ni Gàmbi sama dëkk la ñu doon nit ñu baax bëgg ma fonk ma yëg ma teg ma ci place. at mu jot damay ñëw fii duma fi def une semaine duma fi def deux semaine duma fi def fukki fan duma fi def weer ñeenti weer laa fii des ñu bëgg ma di ma sagal di ma teral di jëflanteeg man lu baax waxuma teraanga ji may may waaye jàmm ji rek ak salaam beeg yëg giñ ma yëg gambien yi te fépp ci àdduna la Amérique ga ma dëkk tabarfakalla gambien yi seen bakken lañ ma teg muy Europe muy Asie ma ñëw ci seen dëkk bi nag ñoom waa dëkk bi gën maa bëgg sax ña ma dëkkal kon maa ngi leen di nuyu ñoom Gambie ni di nuyu tamit waa Sénégal ndax ku ne xam na ne man Sénégal laa juddoo Ndakaaru laa juddoo tabaar la macha allah marke fa sama empreinte nag Ndeye Sow mii moo ma yar tabaar fakal la ku ne xam na ko digganteem ak Macky Sall muy politicien bu mag di nit ku riche ku am maanaa di nit ku am valeur tabaar la yar ma ca Ndakaaru ma ànd ak nit ku baax ku ne ca Ndakaaru ànd naa première dame yi ànd naag président yi ànd naag ku ne kuy nit ku riche ca rek ànd naag yow. tabar fakal la nag laaw la cat ñuy nit ñu baax laaw la cat di nit ñu am maanaa waaw Gambie di ñu baax Sénégal du ñu baax léeg-léeg nag ma sànni leen xeer ñoom Sénégal duma leen may dara ndax le dañuy xaxarante ma ak ñoom waaye nag bu wax dëgg jotee da koy wax ay ñu baax lañ sénégalais yi nga xam ne ñu ngi jéggi féri bi ñëw fekk ma fii Gambie suñ ma gisee dañuy mel ni Michael Jackson la ñu gis da ngay dajeeg ni sax mu ne la mbaay yaa tax ma ñëw Gambie seet si la dama la bëgg te yàlla tax kon diggante Gambie senegal Sénégal benn la yal na yàlla def Gambie jàmm def Sénégal it jàmm yàlla def fa sutura def fa teraanga def fa xéewal defal leen lépp yàlla may leen jàmm at mu bees mi ñuy dugg yàlla na ci yàlla ubbi xéewal ubbi ci teraanga ñi ci bëgg liggéey yàlla may leen ko yàlla suqali suqali Afrique ba mel ni Amérique mel ni dëkk Europe ba nga xam ne xale yi du ñu am sax jot di jël gaali ne dañuy dem man su ma ñëwee Afrique sama yaram bi day daw gis ci mbedd mi nga gis leen ñu am jom di gàddu ay saak saak yu mag ndey saw sama yaram bi day daw gën nga bi ñuy ñëw sama saak bi dafa fees jël la xaalis dama leen di romb di leen jox dama lay woo ba nga ñëw ma foog ni damay nga foog ni damay jënd nga ne ma grand loo bëgg ma ne la am jëlal nga dem parce que sama yaram day daw dama naan kii moo ma ëpp jom parce que nit ku am jom dong mooy def lii kon yal na leen yàlla may teraanga yàlla may leen ay gouver ay président yu baax may leen ay kilifa yu baax yu leen yërëm ba jàppale leen. kon Baye am nga ay projet kon pour pour Afrique ëllëg. damay nëbb noon du ndaw waaw nekkuma Amérique Afrique laa nekk xam nga mën nga féey rek nga boot xeer gën nga sénégalais boo leen neexalee rek ñu ruux la <laughs> gis nga nañ maa def waaw samay am naa ay projet mais projet yi ma gën a am mooy bëgg ñëpp ne ci jàmm man dama ñàkk ki ñaan nday saw man sama xol bi amul kaani man li tax yàlla di ma defal jàmm dama yéene ñëpp jàmm ku bëgg lu baax laa ba pare dama bëgg ñëpp am lu baax bu doon sama sago kenn du sonn ci àddina man ku ma gis sax boo ñàkkee sax ma ni la milliardaire bi dama lay gàngaan lu baax kon yal na yàlla ubbil ñëpp xéewal yàlla mën na ko yal na ko yàlla defal ñëpp nga laaj ma nag ci sama rakk ji ma takk sama lamu jamaa maa ko tu foqati ko jox ko dama koy bàyyeeg moom Mariasin may sa bégee dama tekki ceen ba dollil ko ci muy ñaar ma ni ko soo bëggee ma tekkiwaat montre jamaa bii léegi jox la ko Dubaay laa ko jënde Wally xale bu yaru xale bu am jom Wally Seck xale bu reconnaissant man maa dem man ba laajal maakutu Wally saa buy ñëw Amérique indi ko keroog ci la ko may dàll lu bu tee am carte d'identité maa jëndi woon dàll ba 4000 dollars ñu jox ko ko konte ju la sama waa ji baaxkat bi nit ku am maanaa yow loo may Wally mérito na ko yow géwél boo may waykat boo may artiste boo may bu ko lekkee dafay res parce que sa yaay nga njëkk a teral Aysatu Daabo teral sa papa Alaaji fan su jung jël say rakk yi nekk fii ci Gàmbi daggal leen billet paasal leen fayal leen ñu ñëw Amérique di liggéey am jom xam nga nit bala ngay baax dangay baax ci say mbokk yow da nga teral say mbokk ba pare gis nga tey jii soo fi mayee woon un milliard soo tekki woon li nga yor yëpp joxe ko sa mbokk yi duñu toog naan ebe ñaade naa domoroo naa bijang naa déedéet duñ la jëw ki soose parce que xam nga lu ñuy wax dañ la naan a fela dañ la naan bijang baax na parce que ñoom ñëpp jëndal jëndal nga leen kër ñoom ñëpp teral nga leen di def di faj soxla nit ñi te yàlla tax yàlla na yàlla guddal sa fan Wally Seck nag yàlla na yàlla guddal fanam yàlla bu ko cat dugg te cat du ko dugg parce que gis nga nit boo baaxee américain nee na what goes around comes mooy lu dem rek day ñëwaat te Wally xolamay gàllaajam dafa jëng waaye du mës dem suuf man artiste yëpp samay xarit lañ commencé ko ca bopp bu mag baax waaye waali sama rakk la ku ne am nga rakk waali sama rakk la yàllaa ma booleeg moom papaam moo ma bëggoon jur ma ak yaayam kon yal na yàlla guddal fanam Feeling dakaar yéen yàlla yokk seen teraanga ak kii sama xarit bi léeg mu ne ma du del tudd sama tele bi 221 TV xale bu rafet bu am maanaa bi yàlla na seen jàmm yàgg kenn du yéen Sénégal mbaa yaa ngi ñëw xaar leen ma am kamin